en réalité euh, de, euh, de, de, manière officielle, selon le général euh, Dagnan, il y a eu place et 11 blessés. C'est film Sembène, Sembène, Non, ah, de la version officielle française, signée du général Dagnan. Alors, qui dit qu'il y a eu 24 tués sur place et 11 blessés. Après, maintenant, les 11 blessés-là, il y a eu euh, 35 euh, euh, euh, morts, 35 blessés. que les blessés, c'était beaucoup plus important que cela. Pour voir les gens, même qui sont façon bien rapportée, qui dañuy jaxasoo dañuy mm. jaxase. Mm-hmm. D'accord. En réalité, le document qu'on a trouvé du général Dagnan, il a clairement dit qu'il y a 24 tués, 46 blessés. Aucun loolu mooy lan soit les blessés on les à l'hôpital mm. soit on les a achevés parce que 46 blessés aucun n'a survécu général dañaa signé ko ah, loolu doy na waar mm. donc que lañu commencé di quand François Hollande est venu remettre les les les les les les, les archives numérisées. Mm-hmm. parce que loo xam ne dañ la ko génneel ci këyit war ñu signé ko général bi ko signé ki doon commandé à l'époque kooku mënatoo ko bañ. Mm-hmm. léegi euh, après tey en 2024 moo tax François Hollande dans son discours à Thiaroye yéen ñëpp dégg ngeen ko. en 2012. non 2014. 2014 30 novembre 2014. il a il a clairement dit que c'est 70 morts. et que c'est des soldats français qui ont retourné leurs armes contre des soldats. Bon. Bref, alors léegi. quest on nous sort un autre discours. et qui sont morts pour la France. pour la non non attendez yéen a ngi xaw a <laughs> mort pour la France beneen affaire la. bokkul ak caare bi. non c'est-à-dire que mort pour la France après la première guerre mondiale. Mhm. Clémenceau moo décidé ni ñi gaañu pour la défense de la France. ci première guerre mondiale dañ leen di jox étiquette seen dossier mort pour la France te comme quand on dit un soldat est tombé au champ d'honneur mhm. xam nga ñu ne sa maam dafa dawoon xeexul woon wala dafa kii woon xam nga loolu pour un soldat euh, bon c'est alors donc léegi honneur bi même su gaañoo ñu ne bon kii dafa dee ci xare te dafa dee pour la France mhm. alors bi ñu ko kiiyee nag depuis lors ku gaañu rek ci guerre ñu ne mort pour la France loolu genre sargal la ko mhm. ci sa dossier. léegi nag les condamnés de Thiaroye bi ñu kii bi tribunal bi jugé les 34 là ba condamné leen ñu ne kenn def seen dossier mention. Euh, kii waaw waaw ñi nga xam ne dee nañ ci kii bi quoi. ñeneen ñi aussi euh, bon comme ñoom ils sont pas morts mais ceux qui sont morts ñu ne la mention mort pour la France duñ ko def ci seen dossier. ça a une bataille boo xam ni. au dernier moment ñu ne oui on va donner cette mention là à six tirailleurs attendez il faut être sérieux il faut qu'on nous respecte politique wala waaye ban politique ñoom ba léegi ils cherchent à camoufler certaines choses alors léegi euh, léegi bon j'étais en train de du nombre de de, de, de morts mm -hmm. alors léegi 70 yi officiellement que le président de la France euh, François Hollande a dit ça dans le 14 le, le 30 novembre 2014 mais loolu c'est encore peu minime par rapport à la réalité et les réalités les gens pensent que c'est des centaines et des centaines de morts moi personnellement am na benn tirailleur boo xam ni euh, jot naa ko interviewé bi la même filmé mm-hmm. et euh, gaañu na ndeysaan il y quelques mois de cela il habitait dans la brousse de Fatick dans un village appelé Diohine mu ne ma euh, quand il a été euh, recruté et à l'époque on te recrute de force hein il y avait pas volontaires c'est vrai mais il y a certains on procédait par des rafles ou alors euh, on venait chez toi on te prenait de force et si tu refuses on prend tes parents en, en otage mm-hmm. alors léegi comme pour la première guerre mondiale c'était encore beaucoup plus <laughs> grave alors moom bi ko jëlee ñu ko mu mu bi mais li ñu njëkk def mooy c'est eux qui enterraient les massacrés de Thiaroye ma ni ko ah bon ma ni ko est-ce que su ma la su ma la yóbbee Dakar ci kii bi est-ce que di nga reconnaître fi ñu leen suul mu ne ma ah waaw waaw je l'ai fait je l'ai amené à Dakar mais après bi ma xoolee l'urbanisation sauvage qui se dira mm. Mm. ma ne non il va pas se retrouver il avait plus de cent ans à l'époque d'accord officiellement d'ailleurs je crois qu'il est mort à peut-être dix ans mais pour les Français il, il n'avait pas cet âge-là. que duñu bàyyi Albert mu les forces là les forces là lan la ñu xam ci force yi ñuy wax xanaa da ngeen yàkkamti rek mais ci loolu lay ñëw. Ah. <laughs> en parlant du vieux là. Ah. alors déjà moom biñ ko dañ ko recruter amul këyit. parce que officiellement bi ma xoolee ses papiers militaires il a été recruté en 1948. or il m'a ñoom ñoo doon suul ni ñu massacré woon après les tubaab leur ont dit vous voyez ce qu'on a fait à ces gens-là tamit su ngeen déconné lii lañ leen di def alors mu ne ma ni ko waaw nan nan ngeen leen suulee ñaata ngeen doon def par par ci tombe ak yooyu mu ne ma ah, ay ñaar ñett waaye nag am na benn machine bu mag boo xam ne moom da doon jël kii rek di ko def ci benn camp bu mag. ok ah, charnier quoi ce que je vous dis Okay. Alors, donc fausse commune. Et moi, je persiste à dire que il n'y a pas une seule fausse commune. Mhm. Peut-être moom fa mu nekkoon fausse commune ba fa nekk la wax. Mhm. Pour man, pour moi, il y a plusieurs fausses communes. Même Thiaroye, le cimetière de Thiaroye bi ñuy wax. Mhm. Je soupçonne l'existence de fausses commune foofu. Je ne parle pas maintenant du grand camp. et de plus en plus d'ailleurs les gens sont persuadés. J'ai eu la chance d'aller avec euh, le grand professeur euh, Yorofal, bon, malheureusement, il n'est plus de ce monde. Yorofal, il était euh, archéologue, médiéviste. On est allé ensemble sur le terrain. Bignou yegé cimetière ou Tiaroy. C'est la première fois mu ñëw fa. dafa ñëw rek gis benn euh, kii benn guy mu ne le baobab est un arbre calcicole ça veut dire que le baobab est un arbre qui pousse là où il y a des ossements. Mhm. qui aime le calcaire. Mhm. ça veut que foofu am na ay yax yu fa ne te fosse commune bon et c'est le seul baobab su ngeen seetloo sooy voyagé dem ay caajaay waa boori caajaay am na zone boo xam ne ay baobab rek la. mais baobab yooyu ci kaw ay sëkk lañu nekk. Hmm. ce sont les tumulus de la protohistoire yi nga xam ne séeréer yi ñoo doon suul seen i foofu. ok d'ailleurs y a une loi sénégalaise qui interdit que ñu gas ko parce que y dañ leen doon suul ak seen alal ak seen kii ak ay bijoux seen kii bon bref alors ñu dem ci camp bu mag bi également ñu ñëw ba ci benn bërëb mu xool mu ne ma ici y a une fosse commune te moom moom moo ñu jàngal hmm. et euh, il avait le flair de l'archéologue bref alors ce qui veut dire que on a euh, on, a donc euh, une hypothèse que c'est des centaines des une hypothèse très forte des centaines voire un millier de victimes. Mm alors euh, maintenant ñoom essayé nañ nëpp nëppal essayé kii et ce qui est bizarre dans tout cela c'est que les officiers qui commandaient fii à Dakar ñoom ñëpp ils ont été sanctionnés pourquoi ñu sanctionné leen. am na ñoo xam ne ci la ñu arrêté seen carrière militaire. Mhm. am na ñoo xam ne avancé tuñu am na et cetera. kon ñoom ñoo ko décidé seul. non. ah su fekkee dañ leen xam nga xam nga France xam nga France xam nga dañ naan euh, xaw ma comme un proverbe wolof laa ki di que euh, lëg loo ko kii di nga reconnaître ni am lay ndox gis nga France loo leen munti xas c'est des gens qui archivent tout mhm. ensuite c'est des gens qui ont un respect vis-à-vis de ceux qui ont versé le sang surtout entre camarades français mhm. mais ceux qui étaient là c'était des planqués comme bi hmm. ma léegi hmm. alors qui n'ont pas fait la guerre qui n'ont alors donc léegi ñi nekkoon fii ils ont été sanctionnés par euh, l'administration centrale hmm. parce que d'après Armel Mabon moom elle a épluché les dossiers individuels te gis na ni am na ñoo xam ni ci lañ jëlee retraite anticipée ñii dañ leen euh, seen carrière avancée tuñu bref loolu sanction la. Mhm. parce que quoi qu'on dise quand même il y a code d'honneur que le militaire respecte. waaw boo xam ni même su morom militaire su ko kii ko koy wax. et c'est et c'est qui s'est passé. d'accord waaye balaa ñuy ñëw si yeneen questions yi si la deuxième question c'est les mm. le, blocage qu'on a pour accéder aux archives? Est-ce qu'il y a pour les chercheurs quel est le pour l'État? ban blocage euh, pour, pourquoi on ne peut pas accéder aux archives mais on ne peut pas accéder aux archives parce que xam nga ce n'est pas intéressant de dire que oui ils ont massacré 700 personnes 1000 personnes et euh, pour la la France euh, comme euh, que tout le monde connaît mmh. tax ñu koy ñu koy nëbb quand François Hollande a décidé à l'Assemblée nationale du Sénégal qu'il va remettre les archives euh, au, au, Sénégal. Mais qu'est-ce qu'on ne lui a pas dit en France hein? Mm-hmm. vrai. Et euh, il a reconnu que le, le qui, euh, comment dirais-je, la, la, répression de 1961 contre des Algériens qui manifestaient, mmh. c'était une bavure policière. Mmh. Et voilà, il injurie la police républicaine. Hein? Voilà, qui, lu nekk lañ ko wax. mais il a quand même tenu ñëw malheureusement il n'est pas historien il n'est pas expert mm. alors quand il demande à ses experts de lui euh, rassembler les archives une copie qu'il va remettre au Sénégal mais les gens ne rassembleront que ce qu'ils voudront rassembler et c'est là où ils ont joué euh, ils ont ils ont pris des archives issues du service historique de la défense à bal de la copie alors euh, service historique de la défense archive FENEC am na yu ñu ko ci jox léegi ñenn ñi ne leen mais lu tax du leen du ñu joxee archive yi nekk archive national d'outre-mer ana ah. Ah, ci lañ soog a ñëw jël ay copie foofu jox yooyu la dajale kii mais su amul faay par exemple bu fekkee ne euh, parce que dañoo tirailleur sénégalais ñu bëri foog ne tirailleur sénégalais ay sénégalais kese lañ que Sénégal moom kese se bat pour que récupérer ay archives yeneen dëkk yi pourquoi liggéeyuñu. waaw mais doo bàyyi ma yeggali ci archives yi allez-y ah, après dinañ ñëw ci affaire kii. alors léegi. bi ñu dajalee bi mu dajalee bi ko bi experts yi dajalee archives yu ñu bëgg a dajale jox ko ko moom la indi ñëw jox ko euh, Sénégal léegi archives yooyu euh, soo xoolee am na partie yoo xam ni dañ ko dañ ko kii dañ ko euh, surligner. Hmm. c'est ça qu'on dit hmm. dañ ko effacer ak marqueur voilà. waaw mooy surligner rek waaw. alors ñu effacer ko non surligner sax mën nga liir hmm. mais bi dañ ko effacer ak marqueur. xam doo gis dara lu ne ci ci ci ci kii. dañ ko caviardé quoi. voilà or y a une loi française qui interdit que suñ ko defee nga dindi pour xam lu ci ne je ne sais pas une évolution. Mm-hmm. alors léegi nag yooyu bëri na ci bëri na ci. Mm-hmm. ensuite euh, am na tirailleurs yoo xam ni ci archives yi ñoom dañ amoon seen journal intime yoo xam ni dañ doon bind ci arabe wolofal ah je comme ça qu'on kii oui euh, sama xaalis lii la kii dénk naa ko diw et cetera kii yooyu yëpp mi ngi ci kii mais euh, c'est des archives lacunaires aussi parce que dangay gis euh, xam nga suñu numéroté ne un de ñu tëb trois dem quatre da naan ah trois bi anamu mhm. alors et je vous assure nos archivistes les archivistes sénégalais ont fait un travail magnifique Parce que on avait, Macky Sall avait créé un, euh, une, euh, une, euh, qui, un, un, petit comité qu'on a appelé COVART, dont je faisais partie et que mhm. dirigeait le professeur Ibader Thiam. Les gens se disent, ko ils ont archivé, ils ont ils ne savent pas comment ça s'est passé. Mais on n'a pas le temps de revenir sur okay. cette question-là. Alors, les question bi nga waxoon léegi. que tirailleurs yi dañu foog ne ay sénégalais. voilà alors maintenant. euh, les les tirailleurs ont, le, le corps des tirailleurs a été créé en 1857 bi ñu ko créé il n'y avait que des Sénégalais et jusqu'en 1880 date à laquelle le premier bataillon de tirailleurs soudanais a été créé alors c'est à, à cette époque-là qu'on a regroupé le euh, bataillon euh, sénégalais le bataillon soudanais pour def un régiment après boobu chaque fois que les Français progressaient dans leur campagne c'est-à-dire ñu dem conquérir euh, benn territoire Niger wala avancer Burkina chaque fois qu'ils avançaient ils créaient dans les euh, territoires conquis euh, ou en tout cas occupés une unité de tirailleurs qui portait le nom soit du terroir soit de l'ethnie dominante c'est pourquoi on a trouvé tirailleurs sénégalais tirailleurs soudanais tirailleurs haoussa tirailleurs gabonais mais euh, en mai 1900 la France a décidé d'éliminer toutes ces appellations et de ne retenir que le nom de tireur sénégalais en, hommage à la création du premier, euh, du, du premier bataillon à Saint-Louis. Mm, Donc c'est devenu, assez, à partir de cette époque-là, un terme générique. Mais ça regroupe euh, les, les, les, 17 pays au sud du Sahara qui ont fourni des tirailleurs aux... Euh, et d'ailleurs, les Sénégalais étaient minoritaires. Les Soudanais étaient les plus nombreux et les, Maliens et les Burkinabés actuels mm-hmm. étaient les plus nombreux.